mel nii nii nii kenn xamul lu mu dugal ngeen ci lu nekk def ngeen ci lu leen neex lii du loi teg leen ko nële décret bi ñu ñëw ci décret bi président Macky Sall décret bi mu jël tegu ko fenn parce que amul fenn fu ñu ko mayee ne ko war nga mën a xëy suba naan café bu tàng rek taxaw rek ne élection bi dama koy dàq amul fenn ci benn nga ay supposé ne dañu am ay soupçon de kii euh, njort nañ li am na lee am na dàq nañ élection amul fenn te conseil bi tey jii dafa amoon rendez ak l'histoire parce que lii sama xam-xam bu gàtt-gàtt Kenya moo ko fi mës a def conseil ba daal di kase li nga xamante ni président bi ci ay résultat élection ki ñu mel donc sunu sous région bi nii jafe na nga gis cour bu taxaw ne président de la république arrête du yow jafe nañu am ko hmm. kon tey jii encore une fois Sénégal nañ ko doon xoolee mu ñaaw démb boo boo xoolee médias yi xam ne ñoo nekk bitim réew ñëpp dañ doon wax naan conseil bi taxaw na hmm. conseil conseil taxaw na freiné le hmm. boobu euh, sigil na Sénégal effectivement waaye mooy suñu jiitu réew parce que dañ ko présenté comme comme dafa nekkoon di jaay doole. Mhm. di imposer loo xam ne waru ko imposer conseil conseil nu jug taxaw na ko non non non président waroo ko imposer lii waroo dàq élection yi waroo ko waroo ko waroo ko jàppal bés nga dem Birame wax na ko léegi. Mhm. conseil mënoon na ne compte tenu des délais. compte tenu des jours perdus wala compte tenu des jour de campagne qui n'ont pas été pratiqués wala yu mu ne su ma calculer loolu lépp génnee ko.

annulé nañ ko. Mhm. donc dafay des. annulé nañ ko abrogé na abrogé abrogé. waaw ah, mais moom moo wax a nekk ci jour ci ci date bi mu. mu nekk da comprendre conseil ah, dañ koy jox ay. Euh, du romb le de en tout cas. voilà voilà mais da ngay comprendre que tamit comme ni ñu koy waxee ne. paaka kenn du ko jiitu ci mbaram. wala kilifa kenn du ko. Mhm. kenn du ko ñadd ci ña ñand ci mbedd. waaw. loolu la conseil bi def démb. Mm-hmm. maanaam def nañu war a def yëpp wax ak moom waxam ba mu dégg ko mu ne ko nag léegi yow la balle est dans ton xoolal nooy def ak moom mais tënk nañ la encadré ci benn cadre tey ji bu ko jël na décision mais joxaat na tamit euh, euh, chance président euh, Macky tegaat na ko aussi joxaat na ko maanaam kilifteefam joxaat na ko kilifteefam mm-hmm. mais mais mais mieux tamit dafa indi boo xoolee décision lan moo gën a apaiser démb décision conseil bi mm-hmm. mais bu weesoo détenu yi génn mais décision conseil bi xamoo sax ni mu apaiser situation bi ni mu mm-hmm. doon tàngee tey ñaata manifestation lañu waajoon ak suba ñëpp dañ koy daal teg ci suuf parce que décision bi li mu jël daf leen wax ne yéen li ngeen doon tawat ak li ngeen doon ñaxtu yëpp du weesu le 2 avril donc fi ñu toll ñi ñenn ñi ñi ngi xam ne kat kon léegi pouvoir bi jeex na xam nañ ko léegi ñu ngi koy gëm parce que bu njëkk bi président ne le décembre am nañu commencé di dakkase na war nañ mën a toogaat parce que bu ñu waxtaanee ah, mën nañ dem ba juin ba kii affaire yi mais démb bi conseil bi génne kon ñoom rendre nañu compte ne ah lii kat léegi réalité la mhm. nañ dajale bagage daal xool naka la ñuy defee pour passer le témoin mhm. ak président bi nga xamante ne moom moom fal bees bees moo tax ma ne conseil bi décision bi jël décision bu sage lañ jël mhm. euh, man du bokk si extrémiste yooyu nga xamante na def ni ne moo des mooy jël date euh, élection yi ñu jàpp ko ñu dem mais dafa am loo xam ne tamit max bu ñu koy fàtte mhm. coow yëpp moom moo ko indi waaw mm-hmm. oh, loolu waaw loolu kay. te te démb dégg naa su ma jumul Abdoulaye Elimane Kane la xaw ma bu Leg Africa. Mm-hmm. Euh, mu ne mais lii ça ne doit pas passer par perte et profit waru mën a jaale noonu rek dem. Mm-hmm. parce que benn président dara bi ñu fal la nga toog ñu waroon dem campagne dematuñu ci sa bëgg-bëgg ci sa bëgg ñu waroon dem campagne defoon seen ay réservation dematuñu ñu luy woon oto ñu bëri am na ñoom ne biir dëkk bi leen benn mais bañ ne président Macky day wax dañoo jël seen oto ñëwaat toog toog dañoo jël seen oto ñibbi si toog mm-hmm. ne na ah ñun ko dañoo naroon jiitu suñu gars yi mm-hmm. mais nañ si toog parce que waaye li mu wax dara leeragu si nga ñëw toog dégg mu ne non abrogé naa ko mm-hmm. kenn amatul pexe. daal di fay yam quoi. Mhm. daal daal di fay yem ku ku génn na campagne mu gazé la. ñu après nga toog gis ñu ne président Macky Sall taalaat na otom gars yi wane ko mu taal otom dem ni ñu naan ma gis yenn booy euh, républicain naan ay le boss mi ngi dellu palais mi ngi def mi comme si di kookali sénégalais yi loo xam ne sénégalais yi dañu am benn buur quoi dañu am benn buur boo xam ne dafa toog ba mu neex ko ñu ne jóge na fële et puis jox rendez-vous les mm-hmm. xaar ñu dem RTS ñu tegal ñu di ñu berse di ñu xalamal ba 14 heures mu ñëw nañu abrogé naa ko ñëpp mer waaye boole li ñu mer rek lu ñu metti dem toog jàpp suñu ñàmbur moo tax ma jàpp ne euh, occasion lañ ko joxaat nag mm-hmm. occasion lañ ko joxaat occasion lañ ko joxaat Birame Birame Khoudia fii ak le le deux est-ce que organiser fi ay élection ak li nga xamante ni moom la élection laaj ndax dinañu changé waat li nga xamante ni moom moo di euh, dat bi euh, yenn ci ay euh, bulletins yi nga xam ne jotoon dañ ko tiré dinañ ko tiire waat enveloppe yi dinañ ko changé parce que dinañ ci def datu élection bi loolu yëpp ndax dina mën a nekk. avant le 2 dañ fa mën a def organiser fii euh, ay élections comme ni ko conseil constitutionnel waxee ne ko waruñu génn date boobu la. waaw ah, avant may répondre ci loolu damay préciser que conseil constitutionnel li mu def c'est la hmm. tradition sénégalaise également. si mooy teraanga. kilifa du cëppeelu day barastiku. Hmm. c'est-à-dire tu peux pas nga jóge rek ni cëpp. kilifa du ko def kilifa hmm. danga koy jàpp ndànk di ko jàpp ndànk di ko jàpp ndànk. ba mu daanu. nga faral ko mbaxaneem teg ko. bu ko defee mu dem loolu mooy teraanga. Mm-hmm. loolu rek la indi. maintenant la faisabilité mm-hmm. oui c'est possible de faire ça le cinq bii moo impossible wax dëgg yàlla ndax mm-hmm. gaaña ñañu doon gazé mënuñu dañu nekkoon campagne électorale libre. ñu ngi ko doon wax RTS mais temps d'antenne bi ñu fa doon am mënuñu ko fa am. fi mu ne jël na ay dispositions pour libérer ay nit. wax dëgg yàlla loolu aussi lu lu ko war la waaye quand Euh, nangu na. foofu vraiment euh, ñu ngi ko fi jaajëfal ba tey. Mhm. parce que bu ma waxee la ñu ma lu tax nga wax ko waaye mu ngi ko fay jaajëfal. Mhm. waaw euh, bu ko defee fii léegi la bu dee day woote concertation. xam nga mhm. avant le vingt képp kuy prisonnier politique mën nga génn. egguñu la avant le vingt février bi. février. bu ko defee mën na woote bu ko neexee concertation trois jours wala deux jours avant le vingt deux mu génn def jël date. bu jëlee date le vingt cinq mu commencé campagne électorale mu doon lu nga xam ni véritablement dinañu mën a imprimer la ñu war a imprimer changement yi c'est pas majeur mhm. actuellement nous sommes à l'ère du numé du numérique si. pour def loolu jafewul bu ko defee le 18 dimanche 18 ñu dellu. mooy tirage ak yooyu. waaw ak yooyu yëpp mën nañu ko def avant. c'est pas facile ah. non parce que le nombre bi ñu am aussi ci ay euh, euh, candidats bëri na. non non affaire machine la. loolu eh, tirage bi yëpp gis nga Mohamed maa ngi lay nuyu yow 10 000 ngay def par heure. tirage 10 000 ah. waaw ah waaw loolu day. Ah, par heure par heure 10 par heure. loolu. bu ñu amee jaaxle nañ dem Liberté 5 bugguma publicité. <laughs> waaw ok publicité nga ma pare. <laughs> donc. non mais am na ñu commencé woon ah. am na ñu commencé woon kenn du ko changé li ñuy changé mooy date bi. waaw date loolu du dara. loolu mën nga ko éliminer enveloppe yooyu euh, changé du dara du dara. Mm. nous sommes à ko defee le ñu dem élection bu jeex. deuxième tour ñu fexe ba euh, bañ a génn euh, mois de mars. Mm-hmm. bu ko defee ñu proclamer le 2. wax dëgg yàlla mu génn euh, ñu jox ko mbaxaneem jox ko kii mu dem bu ko defee lépp lu ñuy defati ñu woo ko mu ñëw nun nun sommes pas rancuniers mhm. wax naa ko keroog nee naa même Atepa bi muy def euh, dialogue bi euh, bi muy dem di dellusi si moi compris am na yu bare bu ñu la ko waxee rek yow boo defee analyse da ngay comprendre te doo dem sax toog ak Ousmane Sonko soxlawuma mhm. ba ñu waxee laa génn ni amul amul d'accordul ci amnistie amul xam naa ko amul d'accordul ci date ba moom il est républicain il veut le calendrier républicain maintenant boo ñëwee ni que ah sëñ bi kat dañu bëggoon nga génn fi nga doon te moom injustement arbitrairement kii dafay wax waaw man de je ne demande qu'à sortir. waxtaan waxtaan bi li ñu wax foofu ñu ne euh, Ousmane Sonko def ko ni na xaar mu consulter ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom la àndal yow ci ñi mu àndal nga bokk responsable nga consulter consulter nañ la yow. waxu kii la wala yow information boobu. yëguloo ko non naa information bi loolu wax la pour euh, defar. c'est-à-dire tu góor ko ñàkk kersa. Mhm. mais li ci am mooy. Mhm. li ci am mooy mënul nekk. c'est-à-dire on ne peut pas accepter l'amnistie xam nga mhm. mag la nag bu ñëwee président ni ah. président jaaxle na. je parle euh, amnistie dialogue bi lay wax dialogue bi. non dialogue dialogue bi on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord dialogue bi ñu wax man wax naa ko fépp mooy dialogue bu nga xam ni. deux jours lay doon concertation lay doon pour mm. respecter le calendrier électoral mm. ak pour delloo nit ñi seen àq ak seen yelleef pour même réparer ñi nga xam ni dañ leen toog ay dommages mm-hmm. yooyu yëpp mën na nekk mm-hmm. mais loolu espace bu ndaw lay doon parce que nous n'avons pas le temps nous mm-hmm. sommes tenus par le temps moom dafa war a jeexal dafa war a libérer les affaires courantes bu fekkee ni yow da nga war a libérer les affaires courantes doo am loolu tax ma ni am na beneen dialogue bu ñuy xaar bu nga xam ne président bu bees bi bu ñëwee. bu mm-hmm. toogee kooku lu bare mën na ko defar parce que état la ba tey. Mm-hmm. la ñuy toppee état bi moom mën na fexe ba fay ko bu fekkee ne am na ñu war a jox ay dommages et intérêts dafa leen koy jox et cetera. Mm-hmm. loolu mënut a ñàkk. moo tax am na si boobu ñuy wax. Euh, ak protocole ba ñu commencé woon wax dama génn immédiatement ni Ousmane Sonko du tiye protocole bu nga xam ni dafay wax ni génne leen ma ngeen ma defal leen lii. loolu ça n'aura jamais lieu même bu fa doon. am na ñuy am na ñuy wax ne euh, libération yi gis démb moom mooy euh, premier acte. Euh, protocole bi nga xamante ni moom moo nekk di xew entre la présidence et le Cap Manuel avant que Diomaye avant que Atepa wax en koy fàttaliku avant Atepa wax avant Alioune wax Alioune Tine laa gën a di mais aman am na ku ma ci waxal et puis yàgg naa di ci wax mhm. yàgg naa di dem di ci wax ak nit ba affaire extradition boobu ñu commencé woon soulever sax man mm. maa ngi toog naa fi wax ko. Mm. ni ñoom loolu la ñu bëggoon. Mm. mais yooyu yëpp jaam ak pexeem yàlla ak dogalam. te dëgg moo jëkk dëgg mooy mujj aujourd'hui dem nañu ba monde bi yëpp ñoom ils se sont exposés aux yeux du monde entier lépp lu ñu def ak fu ñu àgg rek euh, du leen doy ñu ni ba ca ba ca ba ca yam. damay egg feneen finalement ils ont été découverts finalement ils ont été ridicules aux yeux du monde. Uh-huh. aujourd'hui loolu moo tax libération bi c'était cest dire au fond ñii dafa imagine toi wax nga ko fi un jour jomaay euh, fay dem ba élection am ñu tere ko dem RTS yëpp mun na nekk man bëgg naa bu yeboo mu am gagné premier tour wala mu génn deuxième tour mu jóge prison dem palais loolu est-ce que ñaawul ci deru Macky Sall mm. loolu yëpp wax nañ ko ni que il faut nga éviter ko dañuy wax ak ñoom éviter tout ça fexeel ba génn par là euh, même bu dee petite porte waaye am na loo jot a def mais fexeel ba gën ci rafet c'est-à-dire fu mu egg rek ñun dinañ ko ah foofu de fii nga egg nii mën nga fexe ba génn nii donc génn boobu actuellement lay def mais bu fekkoon ni dialogue boobu loolu tax bi ñu demee dem wax Ousmane ko di ko bon bëgg nañ nga génn dafay wax waaw ah, bëgg naa génn parce que man kat je suis injustement et arbitrairement incarcéré ñu ni ko waaw condition mu ni déedéet amu benn condition amu benn condition ñu ni ko waaw ndax mën nga fàttee la passé mu ni waaw ndax wax na ko fii waaw man de lépp lu ma nit def man Ousmane Sonko man ci sama bopp mën naa ko fàtte man du yàppalu ma kenn dara ba pare je ne suis pas un rancunier bu nga xam damay topp ay nit wante nag justice moom du ma ci dugg loolu c'est extrêmement important mm. justice dama koy bàyyi mu am indépendance am parce que justice daf li fi nekkal Moustapha nekkal fi yow nekkal fi ku ne donc mm-hmm. Ousmane Sonko bu duggee ci biir justice rek xanaa xamoo boo duggee ci biir justice yaa ngi lor ay nit mm-hmm. parce que nit ñooñu dafa am lu nga xam ni moom lañ leen def am nuñ leen tooñee wala boog mu doon waxtaan wu nga xam ni bu ko président bi ci bees indee ñëpp d'accord ci ba famille beeg yëpp d'accord ci ni nangam danañ ko def loolu dina mën a nekk mais Ousmane Sonko du jël responsabilité boobu pour son propre bien ou le bien de son parti ou le bien des gens qui ont été incarcérés déedéet du ko def mukk d'ailleurs Aliou Sané ak ñoom ñëpp ils ont rejeté ba ñu déggee idée bi léegi Ousmane déggoo ko mu wax ba léegi mais ñun suñu làmmiñ lañ yor moi j'ai pas attendu le truc du bureau politique pour dire ce que je pense je suis sorti immédiatement pour dire qu'il n'est pas d'accord Ousmane n'est pas d'accord Ousmane n'est pas quelqu'un qui va génnam aussi annoncé nañu ko dans les prochains jours euh, euh, am nga ci benn euh, xibaar ah. dafa war a génn ah man de loolu laa leen mos wax dafa war a génn non d'accord xam naa non loolu nga mos wax mais dafa am information